wa atubu ilayhi astaghfirullah alazim alladi laa ilaha illa huwa alxay alqayum wa atubu ilayhi xadisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na ku woor weeru koor ba noppi toftal ci juróom benn fan ci weeru koor wi mel na ne ku woor at mi yëpp xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam man saama ramadana summa atbaahu sittan min shawalin kaana ka siyaami dahri rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi cinq heures trente-trois juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñett tisbaar treize heures deux benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñaar takkusaan seize heures trente ak ñaar timis dix vingt-quatre juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñeent gee vingt heures cinq juróom-ñetti waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom loolu mooy waxtu julli yi ci Tuubaa ak bu fekkee nekkoo Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yi wàññil benn simili soo ko féetee soowu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètres yi yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saloum téeméeri kilomètres yi yokkal benn simili jant bi dana fenk 6 heures 40 juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili desoo 19 heures 20 juróom-ñaari waxtu yu tegal ñaar fukki simili yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin